Assalamu alaikum chers internautes de Allo Dakar TV, donc euh, bienvenue dans votre émission Invité du jour. Invité du jour nous nag que nous avec avec xamante ne avec Nous rek un peu présenté Allo Dakar aussi

waaw commune bu ñuy wax euh, Kër Samba kan nekk ci département Bambey nekk euh, région Diourbel war a toll environ ci ay euh, cinquante sept village di commune boo xam ni yi fa xew sax nga war a wax parce que boo nee li fa xew day mel ni leen na fa xew te yu bëri dafa xew ci yorin boo xam ni dafa jubadi laa ko mën tuddee waaye dafa mujjee xew muy li nga xam ni moo xew ci réew mi yëpp te ñoom ñu yàgg cee jël seen wàll nag xëy na daa am lu law teqaale leen mooy coowu ndengleer bi euh, yaakaar naa ne comme dafa lawoon teqaale ñu nag euh, waa commune ba dinañ jóg taxaw tax ba waa ndengleer seen problème mu réglé suñ problème mu réglé noonu mooy luubal yu bëri daal ñoo ko xew euh,

bon defe naa ni ñu ciy wax bëri nañ mais li ci gën a yaatu ci suuf si ñu koy woowee Boana bi nga xam ne fa la defoon projet Boana bi lay Wade defoon bon suuf soosu amul ñu ko gën a jege sama village man fi mu dëkk muy njiite te àll bu yaatu la hectare yu bëri la suuf su baax la macha allah donc tey ñi ma ci ëpp xam-xam defe naa bariwul parce que man foofu laa màggee xam naa àll boobu. ci biir suuf soosu sax ci ñi ko moomoon am na ko fa abaloon sama maam tool ñu koy wax Pa Gora Dieng Pa Gora na ko yàlla yërëm donc suuf soosu kon euh, ñu ñu ko gën a jege amul dafa nekk nag suuf soo xam ne dafa am benn village bu tuddoon Kër Mabatour boo xam ne dañu déplacé wu xam nga dëkku àll yi des fois dañuy jékki-jékki tux dem fu gën a jege tali ci tout ñooñu bi ñu ko defee nag seeni tool mu ñëw teg ci loxo parce que tool mun nga ko am foofu sax nekk Dakar gi mu nekk sa donc kon ça ne veut pas dire que ni boo déplacé woo feneen bu gën a jege tali dañoo war a nangu say suuf donc mais daf ci def lu lëndëm parce que dafa ñëw jël village boobu tuddoon Kër Moussa daf ko effacé ci cartographie wu commune bi woo conseil yi yenn yi. xam naa dafa leen nag ñoom duñ comprendre nu mu demee ne leen damay dama koy tuddee sama maam tuddee ko maamam maamam la def ci biir suuf soosu pour que xam naa mi ngi xalaat su yàggee bu naree am ay coow yooyu xoolee historique bu suuf si turu maamam lañ ciy gis donc de ce ni famille bi ñoo ko moom mais day nax boppam parce que suuf si ñi ko moom ñetti famille lañ ba ñeent dëkk bi dafa amoon mu sant Dieng ñu leen di wax waa Ngeer ñooñu ñoo gën a bëri la suuf si am ñu sant Fay am ñu sant Toog ak ñu sant Jaay ak sant Njaay ñoo fa dëkkoon. bon li ma leen di xelal mooy que ñu jéem a àndandoo def benn collectif jéem a lijjanti seen ay suuf parce que loolu mën na nekk parce que waa Ndingler lu ñu def ba ñu bàyyi leen seen ay suuf il faut que ñoom ñu taxawee noonu. sinon bu dul loolu xale yi nekk ci commune bi ci dëkk yëpp ñu xool nu ñu dajaloowee loolu incha allah dinañ ci dox ay jéego xool suuf si ba xam dañ koy dañ koo delloo ci commune bi commune bi ak moom ou bien nan la suuf soosu demee parce que bu ko ñooñu jëlaatul rek commune bi yëpp village yëpp ñoo bokk affaire bi rawatina ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk euh, njiite parce que soo xoolee ci diggante njiite la nekk ak dëkk bu ñuy wax Ngomeen. ay njaaxeen ñaaxeen ay kër mbata karkar kayre mapaate village yooyu ñoo seex affaire bi kon nag dina laaj ñoo ñëpp am benn taxawaay bu taxaw bu fekkee ñee defuñu collectif pour jël seen ay suuf ñooñu am taxawaay bu ñu taxaw pour jéem xool naka la suuf si demee loolu moom incha allah lii kii la rek mais dinañ ci gën a yaatal donc suuf si daal man loolu laa ci xalaat en même temps aussi am na ay yeneen luubal yu ci am parce que am na ay carrière yu am njaanu dëkk bu ñuy wax njaanu carrière boo xam ne ñu ngi koy exploité depuis te biir exploitation boobu gisuñu suñu bopp ñun wax commune bi parce que d'habitude bu mosoon am loolu dina am lu ñu leen di delloo soit nañ leen yokkal ci wàllum pañ poste de santé wala ñu yokkal leen ay ndox wala courant ci commune bi mais suñu commune bi moom cinq et quelques kilomètres la ak Dakar war nga fa mën a xëyee añee si Dakar war nga mën xëyee foofu ñëw liggéey si fii de waroon am bu amoon mais commune bi nga xam ni moo gën a dellu ginnaaw si Sénégal ñi nga xam ne ñoo sore mil kilomètres Dakar sax meluñu noonu parce que suñu commune soo dee xool li mu tumuraanke bëri na parce que li mu tumuraanke wàllum paj amu fa wàllum courant village yu bëri amuñu ko wàllum école amu fa comprendre wàllum yoon

loolu dinaa ci sawar li ma jàpp mooy ab homme d'affaires la te commune bi li mu nekk maire titre bi jox na ko mu mën a lijjanti ay affaires personnelles loolu de laa xam ci lu mu fa def parce que soo xoolee ñun ñi nga xam ne sax ay acteurs développement lañ di jéem a développer suñu commune di fa ñëw projet bu ñu fa indi daf koy saboté parce que man village bi ma dëkk di njiite commune ba chaque jour ma wax ko li janti woon naa ba yóbbu fa benn forage boo xam ne vingt deux millions la mu koy réaliser mais càppante nañ ci lu ne xew na ci mu soog ko def luy tax ndox mi di génn tuuti te boo xoolee bagage yi mu ko defaree matériel yi mu ko defaree par rapport ak yi nekkoon ci kayit yi boo xoolee travaux yi deful appel d'offre dafa jël société wu boppam jox ko marché bi directement boo xoolee aussi tamit euh, tibo yi nga xam ne dafa waroon nekk ay tibo galva daf ko def ay genre PVC yoo xam ne évacuation fosse yi ñu koy defaree yooyu la ko defaree moteur bu mu fa indi woon pour muy alimenter affaire bi yàqu na baaxul pompe bi baaxul donc soo xoolee daal ba pare normalement bu dee état dafay liggéeylu bu liggéeyloo ba pare liggéey bi dañ ko war a dañ ko war comment de dañ ko war a inauguré quoi. Mhm. inauguré inauguré wuñ ko comprendre nga en même temps bi jógee ci loolu doon naa defaat beneen effort pour que ñu comme dañ jege tali bi jógee Tivaouane jëm Toubatoul defoon naa ay effort gis yenn gars vraiment ñu fexe ba boole maag euh, ministère ministère bi yore woon euh, gouvernance locale ñu jàppale ma ñu dañuy defal 3 kilomètres de piste mais bi ñu ñëwee waa ARD Ndiobène bi ñu ñëwee xam nga mënuñu bañ jaar si commune bi bi ñu jaaree si moom daf leen ni leen non bu leen def foofu def leen fii pour que mu mun a jógee Kër Samba jaar si toolam boobu tool boobu mu defoon gouverneur bi suufu jàmbur yooyu pour mu xam naa peut-être enclavement bi ko baaxoon moom doon wax xëy na loolu la doon jéem a dindi quoi parce que nee na diggoon na ko 500 hectares mais foofu dafa enclavé tuuti xëy na loolu taxoon mu ba foofu la jaaree tamit yàqu loolu ba fi mu nekk nii des fois da ngay lijjantee affaire mais da xam ni kale yi moom génnu ci parce que comme deful dara day bañ ko def dara nit ñi gis ni deful dara parce que nit bu deful dara boo defee dara rek dañ naan waaye mais ki nekkul maire nekkul dara ba pare di def yi kon ana maire bi moom mooy le seul député maire boo xam ni li ñu lay xool baax mooy dem assemblée. doko gis mu défendre dëkkam du wax lu maa ngi dëkkam du wax lu maa ngi fennam comprendre du wax lu maa ngi dëkkam du wax lu amul lenn lu muy jooy ci assemblée bi musuma ko def musuma ko gis man personnellement muy taxaw di wax dara laa bëgg sama dëkk wala lii laa bëgg sama gox moo tax ndeysaan suñu commune amul un kilomètre de route boo xam ni goudron la commune bi yëpp amul un kilomètre godron soo xoolee entre Toubatoul et Kër Samba Kane mm-hmm. dañ waxoon nañ koy defar bi élection yi jegesee mm-hmm. mais defarum dara commune bi yëpp amul benn cinq cent mètres bu am goudron mm-hmm. suñu commune mooy commune bu amul goudron xam nga ni loolu lu ñaaw la amul hôpital bu baax gàcce la dañuy génne suñu commune sax di dem ay Réfane nag ay commune Toubatoul ay yeneen communes yi di fa faju ci xam nga ni loolu ñaaw en plus tamit carrière bi waxoon naa ci sànq dinaa ci waxaat parce que ndax nañ borom tool yi di exploiter affaire yi ñu mu leen neexee dara leeru ci li muy wax bu fekkee dëgg la na génne contrat yi ci mairie bi conseil yi gis affaire bi nit ñi xam ko parce que loolu moo war a nekk léegi lépp loo def ci commune da ko war a publier ci buntu commune bi commune yu nga xam ne seen affaire day leer noonu la ñuy def lu ñu def contrat yi lépp dañ koy publier ku jaar te mu continuer di wax ak nit ñi mais soo waxee ñu naan est-ce que laaj ko war a laaj loolu non ñun waruñu ko moom moo ñu war di informer ndax moom lañ dénk suñu yëf donc foog mu bëggoon xam lan mooy réaction population Kër Samba Kane ndax mbir bi metti na trop na te mënuñ si dara la ñuy xaar si autorité yi. ñoom waa wax que village yëpp suñu waxee Kër Samba Kane ak li wër. moom mooy am lu leen naqari boo xoolee ñi nga xam ne ay xale lañ te yeewu nañ xam naka ñoo gën a mer parce que boo xoolee paye mag yi meruñu parce que am na lu bari loo xam ne xamuñu ko parce que soo xoolee noonu lay demee souvent parce que jeunes yi ñooy gën a informé comprendre mm-hmm. donc moo tax ñoom ñoo gën a mer soo xoolee am na ay kuréel yu nekk Kër Samba

biir àll bi ñu xam ni dañu war a yeewu yeete pour que li fay xew trente ans ba léegi wala vingt huit ans wala lu ko jege ba yóbbee ñu li ñu nekk lu ñu gën a nelaw rek affaire bi gën a metti bu mu si jógee nag li may xaar ci état muy son excellence président de la république monsieur Macky Sall li may gën a xaar ci moom mooy ñu mel nii moom moytu leen parce que li tax mu war leen moytu mooy ñu mel nii dañuy tilimal bilan dañuy yàq ginnaawam bu fi jógee day tax lépp lu ko nit bëgg a wax mën ko wax mën cee dugg baaraam parce que ñii li affaire cuune la parce que am na ñoo xam ne par exemple bu ñu defee yenn affaire yi boo leen dee wax sax ñu mën a taxaw woon défendre seen bopp. mais ñoo xam ne dañuy def lu ni weng nga ciy teg sa baaraam te boo leen waxee mënuñu la wax benn mot boo xam ne dañ ciy défendre seen bopp loolu gàcce la ci président ñu mel nii di ko tudd surtout rawatina ñoo xam ne nag régime bi ñoom ñu nañ PS nekk nañ PDS réew mi nekk nañ APR bu subaa leneen la ñuy nekk tilimal sa bilan say sa parti ak say affaire président dafa war a gestu xale yi

dafay jàppale li xewoon bu yàgg ba léegi mun naa jàpp te loolu moo koy daaneel parce que ñun dañoo bëgg vraiment xam suñu suuf yi leeraay bu mu leer bëgg nañ mu leer bëgg nañ xam naka la te dinañ ci jóg dinañ ci wax lu mu laaj dinañ ko def à part loolu tamit bawal tamit responsable yi fa nekk am na ay liggéeykat maa ngi leen di wax ñu xepp seen bët xool. xool nan la ñuy parce que ñu mel nii jël ñoo àndaat ci dara parce que dañ lay tilimal rek. dañ lay tilimal dëgg yàlla euh, miinu ma ko xam naa ne liggéeykat la parce que maa ngi gis la taxaw rek te euh, ñi nga xam ne pare nañ quoi ñi nga xam ne vraiment daal.

ñu ci lu ñuy fekk xamuñu nu ñuy fekkee man bu ma sañoon vraiment ñu bàyyi ko ba prochainement. <laughs> soxna si daal dama bëgg wax xam naa ne daal paa bi wax daal moom. Mm. mën naa ne sama papa la mais aussi xam nga sama gis-gis ak gis-gisam moo bokkul. Mm. parce que euh, amuñu benn problème nag moom. Mm. ci li ngay wax ni sànq léegi maa koy clash man tuddee ma ko loolu parce que. man dama gis lu normal rek di ko wax loo xam ni bu ma toogee moom tamit loolu laay wax ak moom fi ma toog moom bu ñu gisee loolu ci loolu laa koy wax ci jamono yi may gisante moom ci affaire projet boobu ma la waxoon muy ndox mi saa yi bu ñu gisantee dëgg bi man li ma lay wax nii dëgg boobu laa koy wax peut-être nag Sénégal am na ñoo xam ni boo leen deewoo dëgg li lay jàppee noonu mm-hmm. te alors que man je me booy jàpp soppee Euh, ki lay wax dëgg moom nga war a jàpp parce que euh, wax dëgg jafe na ndax am na ñoo xam ne bëgg nañ ko wax amuñu fit bi am na ñoo xamante ni nii bëgg nañ ko wax yaakaar ci yow dara am na ñoo xam ne aussi bëgg nañ ko wax am leneen luñ lay rusee koo xamante ni kooku tax mënuñu la wax dëgg te ñu wax dëgg yàlla loolu daluñu ci dëgg moom dëgg loolu daluñu ci buñ ko fekkee buñ ko waxul euh, duñu am jàmm chers internautes d'Anne Dakar TV l'émission tire à sa fin donc on est confié avec monsieur Moustapha Djité acteur euh, de développement et entrepreneur donc que euh, son mot de la fin Moi aussi là la conseiller jeunes mot de la fin moi euh, di

te bu ñu yeewoo ba pare ñu yeete parce que aussi nañuy yee seen ku mën a yee sa soxna sa jabar yee ko ku mën a yee sa yaay yee ko yee leen nit ñi parce que ay nax waxi kese jariñul dara te ku la jàpp vingt huit ans wala vingt sept ans di la nax wax dëgg yàlla benn at sax boo ko jëlee ci ak dund euh, bëri na parce que commune bi am na ay doom yu fa nekk yoo xam ni mën nañ yu bëri maa ngi leen di woo maa ngi woo ñi ñoo nga xam ne commune bi la dëkk nekk diaspora nekk dëkku afrique yi nekk fu nekk ci aduna bi ñi nekk dakar ñi nekk ay étudiant ñuy gën a waxtaan gën a duggante vraiment xool ay organisation yu mun a def bu dee ay panel wala ay affaire ñu gën a cee daje pour waxtaanee suñu njariñu gox ak suñu njariñu commune man moom maa ngi ci te taalal naa la ko ñëpp pour que luy yóbbu commune bi ci kanam parce que doxul mètre nag wax dëgg fa yàlla donc di ziare waa commune ba yëpp 57 villages yëpp ba 58 maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla vraiment gën leen musal ci mbas mi ñu toll ni Covid 19 bi yàlla gën leen ci musal ci seen ay jëm ak ci seen ay koom ak seen ay yëngatu yàlla may leen nawetu jàmm bu barkeel sedd buy te ñu gën koo moytu rek di gën a jëm ci wàllum set ak respecté kër docteur ministre de la yi mu digle. bu ko defee rek yàlla dinañu musal nañu jàmm incha allah rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah